tënk <laughs> ñoom ñu feccee di kii ba ah, dañoo yeewi buumu <laughs> buumu jaan ci ñun kon merci beaucoup à vous doolee jën ndox encore une fois bu duloon yéen dara du baax kon nag merci à vous Aïcha ñu dugg nag ci wàllum immobilier waxtaane espace vert l'importance de l'espace vert ou des espaces verts ci wàllum immobilier laatee ñoo ci gan gi nga xamante ni wàllum pétrole gi Sénégal découvrir moo ko fee indi <laughs> Aïcha monsieur Thiam la ñuy dalal laata loolu yépp bu ko defee ñu gën a yaatal ci wàllum immobilier Aïcha mi ngi noonu coulisse a ngi toj parlons immobilier importance des espaces verts dans l'immobilier oui dans l'immobilier et plus généralement dans dans dans dans, dans l'environnement dans la ville de manière générale hein, parce que asma espace vert moom lu am solo la xam naa nag euh, il va falloir apporter d'abord la notion d'espace vert mhm. qui est, qui constitue n'est-ce pas les espaces non bâtis hein, dans les agglomérations qui sont arborés euh, boisés ou qui sont agricoles donc zone la yoo xam ne tabaxuñu ko mu nekk ci ci ci ci ville bi wala ci ci ci cité yi wala ci dëkkuwaay yi nga xam ne ni euh, dafay dafay faral di naat am ay garab wala ñu aménager ko de telle sorte nit ñi dañ fa mën a doxantu dem fa dafa toog di waxtaan euh, donc mu nekk espace yoo xam ne ñu am solo la nga xam ni képp kuy def euh, lotissement en tant que promoteur immobilier waa cadastre ak service yi nga xam ne ni ñoom ñooy gérer lu immobilier de manière général dañ la laaj ne loolu impo dañ la koy imposer parce que ça fait partie des ser yoo xam ne nii euh, dafay dafay dañ koy soxla voilà donc moom avantage yu bëri yoo xam ne nii euh, espace vert yooyu am nañ ko ba tax na waruñu ko sax di ko jaay sérieusement parce que Sénégal on remarque que ñu bëri espace vert yi dañ koy jaay suñu defee seen autorisation de lotir ba pare euh, certificat de conformité bi su ñëwee très souvent dafay déceler ne am na parti yu bëri yoo xam ne dañ ko jaay mu bokk ci ay servitude souvent ñu dégagé waat ñooñu et c' est à parce que lu am solo la ñu dégagé ci quatre aspects yoo xam ne ni euh, yu am importance la ci njëriñu espace vert yooyu noonu bon le premier aspect euh, c' est l' aspect environnemental ah nga xam ne ni espace vert yooyu déjà dafay comme ay ay ay ay ay plantation ay en fait ay ay plantes la ñu ah c'est des plantes dafay euh, réduire les gaz à effet de serre nga xam ne aujourd'hui c'est c'est c'est le premier facteur ne ce pas de l'érosion de la couche de la couche d'ozone ah la pollution aussi des échappements oto yi ku nekk xam na ne Dakar bëri na oto ah bu nekk ngay gis ñu am ay problème asthme ak euh, gasoil bu bon yi gars yi di nooyi ak oto yu màgget yi donc seen une émission de de de de d'échappement yooyu noonu ak euh, réduction du co bi gaz carbonique bi loolu dina ci jouer rôle bu am solo ah d'autant plus que soo xoolee OMS Ah, dafa am loo xam ne ni ci indice vert urbain ah, daf ko décelé mooy dix mètres carrés de de de entre dix mètres carrés et quinze mètres carrés de d' vert par habitant. Hmm. ah moom mooy mooy mooy mooy tax nit ñi mën a dund am air bu doy am vraiment santé bu bu bu baax ah, mu bokk ci yi nga xam ne ni dafay sauvegarder environnement donc soo jógee ci environnement lim ciy def nga ñëw ci santé hmm, ça coule de source. Euh, dana dana jàppale nit ñi par exemple ci espace bu ñu doxantoo. Mhm. soo lekkee ba pare wàcc soo nekkee sa kër tëju lu mhm. yàgg ak euh, koo gis ak Covid bi ah kon euh, ni ñu doon tëjee nit ñi nu mu tuddati woon sax. confinement confinement bi. ah ñu bëri dañ leen bëgg di doxantu ci tu vois même en Europe nit ñoo xam ne dañ leen di may ñu ne la maanaam mën ngaa dox fi ak un kilomètre sa kër may na la nga dox parce que dañu am dafa am njariñ ci nit ah parce que demoon nañ ba nit ñi sax. violence yi ñuy wax nii tey basée sur le genre et même sur voilà sur l'espèce humaine de manière générale daan am nga gis ñoo xam ne dañuy rey seen doom yi parce qu'ils sont tellement stressés donc euh, aussi dafay am solo ñu am espace vert mën a doxantu mën a tàggatu di fa def ay activités socio-économiques et socio-culturelles socio-éducatives mm-hmm. di fa dajee di waxtaan di fa toog mën a lire benn livre dégager ce stress parce que nañ saa na nga nekk ak n njaboot coow bëri nga daal xale yi génn leen ci biti maanaam ñu génn oto laal leen parce que amuñu espace boo xam ne ni c'est sécurisé pour ñu mañ faa nekk donc mais espace vert euh, boobu est-ce que tey jamono ji ci nu ñuy caxat caxatee suuf si. Hmm. nit ñi danañ dem ba am euh, possibilité def ko c'est vrai que dafa bëri njëriñ. Hmm. Euh, gis nañ ko ci Moussa des fois ci confinement bi. fii la doon defee sport yi tàggatu nit ñu bëri dañ ci hmm. doon doxantu ñi takk seen écouteur ñi lire seen livre pour sortir un peu de leur cadre de confort pour am beneen horizon beneen air bu bees. dafa am solo comme ni nga ko waxee. dina tere ñu bëri di xaru wala di mer wala di jamante wala di dóorante euh, est-ce que tey suñu suuf si ni ñu koy caxat-caxatee dinañ demati ba am opportunité am espace mais problème boobu laa doon wax léegi nii parce que il faut que euh, l'administration euh, aujourd'hui au Sénégal soit plus regardant sur les sur la délivrance des certificats de de mais surtout sur la la délivrance des certificats de conformité parce que mën nañ la jox certificat de lotir sur la base li ngay plan ne dinaa fi def li fi def li loolu c'est une déclaration mais nag en réalité lan nga fa def loolu mooy moom la certificat de conformité di ñëw di dëggal xam nga lii laa fa bëgg def soo paree ñu ñëw ñu ñëw déplacé wu sur le terrain ñëw xool li nga def réellement c'est quoi soog la mm-hmm. defal ce certificat de conformité donc pour ne pas que ça soit fait de manière complaisante il faut que les gens puissent quand même se déplacer et faire un travail vraiment euh, pour loolu bañ a am comme ni nga ko waxee asamaan c'est très important bon euh, suñu delluwaatee da ngeen di gis ville yu bëri yoo xam ne tey jii seen climat ah dañuy am li ñuy woowee smog Hein, le smoke, c'est un mot concentré, un mot valise entre l'anglais, euh, en fait deux mots anglais en fait ñu composé. Mm-hmm. donc yaa ngi ciy dégg smoke comme la fumée waaye fog aussi comme le brouillard soo demee en Chine par exemple. Mm-hmm. da ngay gis ñoom ñëpp dañuy takk masque même bu Covid. ci waa parce que le taux de de de de de d'émission de gaz carbonique ak fumée bi ak brouillard yooyu nga xam ne ni c'est causé par la forte industrialisation de la Chine euh, moo koy causé donc pour éviter yooyu il est bon que ñu am ay poumons verts yu mel ni ay espaces verts yooyu pour mu mën a déjà absorber euh, euh, le trop plein de de gaz carbonique boobu pour mu mën ko kii dafay jouer aussi sur la socialisation le processus de socialisation loolu soo ko déggee mooy nit ñi di mën di dajee ci benn espace commun ngeen nekk ci benn cité ku nekk tëju. yenn saa yi nga génn toog ci jardin bi wala nga doxantu jardin daje faak sa morom xamante leen mën ngeen a miinante mën ngeen a xamante mën ngeen a jaxasante tu vois nit ñi dañuy faral di def ay barbecue dimanche togg benn affaire ñëw teg ko foofu wala nit ñëw foofu di ba lire benn livre wala comme ni nga ko waxee coach Moussa organiser benn affaire euh, dëkk ci biir cité bi def ay ay ay ay ay aérobic ainsi de suite loolu dafay boole nit ñi day tax nit ñi aussi xamante di muñalante di di di mën a xamante parce que loolu c'est important euh, processus de socialisation parce que tey aujourd'hui on parle de la violence dans le dans le sport et tout ça c'est dû à ça dina tere aussi xale yi di renfermer wu toujours nekk ci internet bi ah ko aussi seen i clavier ak seen i seen i écran parce que amuñu espace bu ñu manee demee pour pour vider ce trop plein d'énergie là nga xam ne toujours dañuy xam ne xale dafay déborder d'énergie donc loolu lu lu lu am importance la euh, je pense qu'on va terminer par ce processus de soulagement bon il y a am solo parce que pollution visuelle dafa am nit ki soo nekkee fenn sa environnement bëg nga sooy xool ngay xool lu rafet di gis lu rafet te sooy gis jardin yi muy naat ngay gis fleurs yi muy naat soo taxawee si balcon mën a sànni sa bët mu sori ah, loolu c'est important daf lay daf lay daf lay daf lay apaiser dafay dindi sa stress mais au-delà même de de de ça y a a l'aspect coût parce que képp kuy def sa investissement comme ni ko waxee Asma. nga mhm. def benn cité te dafa fa jardin dafa fa benn espace vert. ah suñ ñëwee gis ne c'est trop mécanique nga mel ni kuy kuy dund ci <laughs> période boo xamee ne adduna bi dafa jaxasoo euh, c'est pas nit ñi nit ñi tey fu may dem maanaam day jënd par exemple damay jënd fi nga xamee ne cité bi am na jardin am na espace moo mën a tàggatu mën a doxantu ainsi de suite par rapport à foo xamee ne amu ko donc ça joue aussi sur le coût et sur l'esthétique euh, dana taaral dana dana kii. et le bien-être vital des citoyens c'est important. je pense ah, que Karim Fofana l'avait compris. moo tax mu mu def euh, ay fleurs fépp. Euh, ci rond-point yi ak suufu pont yi voilà cadre de vie parce que malheur rek comme ni mu ko waxee soo xoolee tey bëri na quartier yu bëri yoo xam ne espace vert yi jaay jaay nañ ko lépp la ñuy jaay c'est ça justement le problème c'est-à-dire dañuy jël lu war a nekk espace vert def ko terrain ni tabax fa tabax fa léegi ñu xatante nii xoolal New York New York c'est une grande agglomération mais aujourd'hui tu as tu as tu as Central Park ñëpp xam nañ Central Park ku dem aux États-Unis New York Central Park ñi nekk Manhattan cité administrative bi suñu liggéeyee ba wàcc dañuy ñëw lal seen kii del seen i toog fa mën a décompresser tuuti pour mën a ah, pour a delluwaat seen xale yi place de l'indépendance bi. tey ñi dëkk aux environs. ni ñu ko réflexionné nii da ngay saa nga toog sa bureau bu si àgg un trop plein de de stress nga ñëw toog place de mais faudrait-il aussi que foofu ñu bañ a bàyyi aussi ay nit ñoo xam ne dañ fay nekk peut-être di la agressé. voilà voilà voilà c'est ça aussi il y trop de litiges.